salaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 euh, point 5 euh, rawatina seen émission toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey jii ñu daal di euh, fas yéene waxtaane li nga xamante ni moom mooy naufrage bu batalo Joola ni gi tey jii 26 septembre 2020 ci la am 18 ans parce que 26 septembre 2002 ci la bateau le Joola daal euh, suuxoon nit yu bare bari euh, daal di ci ñàkk seen euh, bakkan tey jii nag dix-huit ans après le naufrage ñu fas yéene ko waxtaanee dossier bi fu mu toll victime yeeg famille victim yi ba léegi am na laaj yoo xamante ni ñu ngi koy laaj ci nguur gi amuñ ko lépp ñu daal di koy fas yéene waxtaanee ak samsidin ay dara nekk membre bu comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée le Joola amul jot nag parce tey ci boppam ci lañ ñuy amal seen i activité à onze wala douze heures donc kon ñu ngi koy remercier euh, ci teew bi nga xamante ni ñëw na ko malgré tout ngir rek wax ak ñun euh, ci naufrage bateau Joola Samsidine Aidara ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm maa ngi lay fay euh, maa ngi nuyu waa réew mi FM di nuyu mbooloom auditeurs yoo xam ne ñoo ngi ñuy euh, déglu tey jii. Mm-hmm. di leen remercier ci invitation bi ndax waxtaan yu mel nii doon na loo xam ne lu am solo la te war nañ ko di amal nit ñi mën a xam lan moo xewoon lan mooy xew toujours ci mbirum la Joola. voilà suñu waxee euh, naufrage bateau le Joola yow ay dara lan la lay fàttali exactement. suñuy wax euh, naufrage bi sama xel day dellu ci bés boobu di 27 septembre 2002 nga xam ne ndaw laa woon xale laa woon am 7 ans nekk euh, Ziguinchor euh, sama samay ñeent mag dem ci bateau bi man ma doon jooy vey bi ne damay ànd ak ñoom bàyyiwuma ñu dem ma xëy ñu ne ma say mag dem nañ bateau bi suux na man boobu boobu gëw ko woon gëw ma ko woon parce que damaa jàppoon ne rek ah mag yi daal mhm. dañuy wax rek dañoo gaaw a ñàkk yaakaar wante man si sama xelu xale instant boobu du jooyu ma aw ma woon naqar aw ma si woon dara mhm. espoir laa amoon ma dem poor toog fa comme si damay xaar samay mag dem toog jaakaarloo géej bi di falaa yendu mhm. ba ngoon si mais tey jii su ma koy xalaataat ndéegi mag laa mm-hmm. may si xalaat si bés boobu damay am naxar day doon bés boo xam ne diis na lool si man day doon bés boo xam ne su ma koy xalaataat damay am frustration parce que mm-hmm. dix-huit ans après gis nañ ne lu bëri loo xam ne waroon nañ ko def daanaka sax lépp lu ñu waroon def defuñ ko si te mm-hmm. dafay mel ni samay samay mbokk ak du man kese ak ñëpp ñoo xam ne jox nañ si ñàkk seen i mbokk. Mm. day mel ni euh, bakkan yooyu yëpp dañ dem rek ñëpp fàtte ko. donc yow euh, nee nga bi ñuy dem euh, say mag da nga doon xataraay pour topp leen ba jour boobu àndoo ci nga ñàkk ci ñeenti mag naka la demee exactement ay góor lañu ay jigéen lañu dañu doon jàngi si naka la demee. ñoom ñëpp ay ndaw lañ woon. Mm-hmm. ñett ñu góor ak kenn ku jigéen. dañoo àndoon ñun ñëpp dem vacance Ziguinchor naroon ñibbisi mm-hmm. famille bi yëpp naroon booloo jël bato bi mm-hmm. sama maam bu jigéen mm-hmm. moo ne famille du jël benn benn yoon kese suy ñibbi ñu xaaj ko duñu ànd duñu ànd voyage donc ñu xaaj ko buñ ko xaajee man sama maam sama yaay ak sama tànt ñu ne dañuy jël yoon bi ñoom ñeent ñu dem jël bato bi noonu lañ ko xaajee ñoom ñëpp ñu ngi doon jàng Euh, université wala wala wala lycée wala. Hmm. lycée lycée lañ nekkoon je pense hmm. donc euh, ils étaient assez jeunes. Hmm. Euh, am na si ñoo am na si ku nekkoon collège. ñeneen ñetti ñi ngi woon lycée. donc boobu ñoom ay jigéen lañu wala ay ay góor lañu. ñett ñett yu góor ak kenn ku jigéen donc y avait Papi. Aliou Bachir mm-hmm. ak euh, faatu mm-hmm. donc euh, ñoom ñett ñoo ñeent ñoo ñoo des ci bato bi mm-hmm. mu doon euh, bés boo xam ne bés bu diis la ci famille bi yëpp ba tey jile dix-huit ans après mënuñu leen fàtte ñi ngi leen di ñaanal mbir boobu métti nañu trop te ñi ngi bëgg sénégalais yi delloo seen xel xalaataat la joolaa xalaataat lu waral la joolaa te ñu commencé jëfee jëf yoo xam ne dina tax ba lu mel ni la joolaa bu mu mën a amati si dëkk bu ñu nekk chaque vingt six septembre lan ngay sentir Samsidine Aidara parce que euh, ku ñàkk ñeenti mag si bato la loolu euh, ñàkk kenn rek c'est dafa metti waxuma la nga ñàkk sa ñeenti mag chaque vingt six septembre lan ngay sentir. atoo at vingt six septembre su jotee. day doon loo xam ne day diis ci xol euh, parce que su weesoo sax naufrage bu bato bi lépp loo xam ne après naufrage bi ba tey ñi ngi continuer di ko gis mhm. dafay yokk naxar mhm. donc day doon naxar boo xam ne ati at mhm. day yokk parce que day mel ni ñooñu seen bakken njëriñu woon dara seen bakken amuloon valeur ñun ñoo leen ñàkk wante day mel ni euh, réew bu ñu nekk nii euh, loolu amul leen benn importance amul dara loo xam ne euh, mën nañ si delloowaat seen xel ne ah lii de def nañ ko ñu dara si joolaa te ba tey jii ñooñu yoon àttewul samay mag dem nañ ñam ñeneen euh, ñàkk nañ ci seen i doom ñeneen ñàkk nañ ci euh, seen i waajur wante boobu ba tey ñu ne mille neuf cent dix nit mm. gaañu nañ ci bato boobu mm. wante yoon àttewu ko donc damay am tamit gàcce si sama biir yaram dama koy yëg gàcce parce que sénégalais laa wante parfois damay rus dëkk bu ma nekk nii parce que su ma gisee yenn yi comme kaawu joolaa bi damay rus xam ne ñun suñu dëkk bii nii su dee mënuñu rendre justice pour mille neuf cent dix-huit personnes c'est que dëkk bi am na yu bëri yoo xam ne jaarul yoon. mais mais tamit gis nañu dossier bi dañu ko classé sans suite fële ca ca ca France tamit. parce que bi ngeen ñëwee fii Sénégal amu leen ci dara peut-être dossier bi yóbbu woon nañ ko am yaakaar ci justice française mais gis nañu ñoom tamit euh, joxuñ ci benn suite bu favorable. xam nga justice française mu àttee mbirum la joolaa dafa nekk loo xam ne daa compliqué. Mhm. ndaxte ñoom non lieu buñ ko bu ñu bu ñu wax noonu à la mhm. ñoom dañoo identifier woon ay responsable yoo xam ne ñu ne war nañ leen déglu. Mhm. pour xam lan moo xew ci bato bi mais ci responsable yooyu daa am ñoo xam ne nguuru Sénégal. moo leen protéger be munuñ leen déglu mm-hmm. donc ndëgëm munuñu déglu ñoo xam ne ñoom ñoo jiite woon mbir mi munuñ ko àtte parce que munuñ si am lu leen leer donc euh, dafa am ay accord yoo xam ne mi ngi dox entre ñaari dëkk yi muy France Sénégal mm-hmm. bu tax ne euh, am na yenn personnalité sénégalaise yoo xam ne euh, France justice française amul droit euh, juger leen mm donc si loolu la ñu basé wu monte jeexagul ba tey parce que tey jii waa France am na non-lieu mhm. mais dañuy dem cour européenne mhm. donc euh, dinañ ko topp ba fu mu yem mhm. wante loolu teewul ñuy continuer di laajte Sénégal mu am réouverture ci dossier bi ñu mën a seetaat dosier bi Euh, def justice topp ko def si lu si war. Mm tey jii nga am benn nga bokk ci euh, comité euh, d'initiative pour l'élection du mémorial musée le Joola comité boobu exactement lan moo ko tax a jóg. commité boobu euh, buñ koy créer lu ko taxoon jóg mooy lan jël porter euh, doléance su famille de victime yi yëpp jël lépp loo xam ne mhm. ñun ñëpp euh, mhm. d'accord nañ si ne mhm. lii moo war a am te point yooyu muy question wu renflouement bato bi di question wu justice bi di question wu mémorial musée bi prise en charge ndaw yooyu ñàkkoon seen waajur ak def vingt-six septembre mu doon journée national du souvenir donc si cinq points yooyu la ñëpp d'accord ñu rassembler les associations euh, sénégalaises et françaises de victimes différentes associations yi ñu ñëw rassembler wu nag doon benn booloo ci comité bi avec euh, euh la famille dara et les orphelins aussi maintenant. Mm-hmm. yow léegi lan moo la euh, dugal ci ci xeex parce que gis nañu depuis quelque temps euh, Samsidine yaa ngi ci média yi di kaas tout pour jëm ci li nga xamante ni mooy naufrage bateau Joola lan moo tax nga fës ci xeex bi exactement. damaa ñàkk sama deret damaa ñàkk sama deret mu doon loo xam ne diis na si man ma gis ne euh, Sénégal daa mel ni dañ fàtte mbir mi ma gis ne lépp loo xam ne doon nekkoon na ay dige yoo xam ne waxoon nañ ko mhm. ba tey defe jëfewuñu ko te tey jii ñun suñu pap yi euh, ñoo ñu doon xeexal ñoo fi nekkoon di wax wante soo demee ba ndaw yooyu nga xam ne xamuñu woon dara bu bato bi di suux mhm. doon ay mag mën a taxaw waxal seen bopp ñooñu mën nañ taxaw suñu pap yi noppalu tuuti. Mhm. ñun ñu jël relève bi mën si wax ndax suñu combat tamit donc dañ si def suñu wareef. te tey ji jàpp naa ne gàcce la Sénégal ñuy xaar ba ñoo xam ne am na si ñoo xam ne si comité bi bu bato bi di suux deux ans lañ amoon. Mhm. tey jii ñi ngi taxaw di mën a wax di wax mbirum la joolaa lépp loo xam ne. defuñu ko woon te digg nañ ko te loolu gàcce bu mag la si kilifa wu réew yow may léegi din lan la euh, leen gouvernement bi dikk te defu ko surtout ci côté indemnisation bi dañuy gis tout le temps ngeen ciy wax lan la état bi waxoon ci côté boobu te defu ko non ñun sax parce joxe joxe nañ ñun waxuñu waxu indemnisation mais suñu waxee sax waxu indemnisation euh, indemnisation yi maa ngi lay fàttali ne du ñëpp ñoo ko jël Euh, indemnisation yi ñu ko bëgg a jël jël nañ ko te ils en ont le mhm. am na ñeneen ñoo xam ne tamit nee nañ jëluñu indemnisation parce que du loolu moo leen tax a jóg. ñan lañ waroon indemniser comme ça nga leeral ñu ko ñu xam parce que ba léegi problème mu indemnisation yi ça pose problème alors que am na ñu ñu jox xaalis. non indemnisation yi ça pose pas de problème. Mhm. lan mooy poser problème mooy la prise en charge des orphelins. des orphelins c'est différent de indemnisation yi dañ ko joxoon les familles qui le désirent. Mhm. pour euh, famille victime yi ñu bëgg ñëpp jox nañ leen. ah en tout cas daal loolu la ñu wax man xaw ma si daal yow yow jigéen man ñun suñu kër jëluñu man sama pap mosul jël indemnisation ndax euh, jàpp na ne moom du loolu moo ko tax a jóg mm. indemnisation soxlawu ko lu mu soxla mooy lan mooy ñu yóbbu affaire bi yoon ñu déggin justice mm-hmm. parce que dafa loolu dafa doon loo xam ne dafa am solo si réew mi donc ñun waxuñu waxu indemnisation donc am na famille yoo xam ne bi ñu ñëwee comme yéen seen famille malgré que euh, perdre ngeen quatre euh, frères ak sœurs da ngeen a refuser indemnisation yi am na ñeneen ñu ko jël donc ça pose pas problème ça pose pas problème loolu ku nekk avec ta position la rek mm-hmm. donc ku nekk chacun a le droit d'avoir sa position si mbirum indemnisation boobu ñun point yu ñu rassemblé daal mooy cinq points yu ma yu ma wax sànq. Mm-hmm. te si loolu lañ d'accord ñun ñëpp si loolu la ñuy xeex. léegi prise en charge orphelin yi parce que yaa ngi koy wax sànq. prise en charge orphelin yi doon na injustice bu mag. Mm-hmm. ndax euh, bu ñu doon wax waxu prise en charge orphelin bu ñu doon wax waxu pupille de la nation dañu waxoon loi bi day jël effet à partir de premier janvier deux mille deux mm-hmm. euh, malheureusement bu ñu koy commencé appliquer. dix ans après yow nit ñàkk ay waajuram déjà. Mm. nga xaar dix ans pour ne da nga koy commencer jël en charge. Mm. yamu si su doon sax dañu ne ah léegi dix ans yu yu weesu. nañ leen ko fay parce que loolu la ñu wax. Mm. wante déedéet ñu ne dix ans yu weesu duñ leen ko fay. yamul si loolu ñu ne ñëpp ñoo xam ne jot nañ si am dix huit ans si dix ans yooyu maanaam duñ leen jël en charge. Mm-hmm. donc si mille neuf cent orphelins ñu waxoon lu néew lañ si jël. Euh, début bon ñaata lañ ci jël en charge ci orphelin yi. chiffre exact bi peut-être que réer na ma parce que liste de départ bi. Mhm. après am na quelques quelques rajouts. Mhm. yoo xam ne def nañ ko si bon di liste bi c'était six cent et quelques je pense mais après dem na ba un peu plus de sept cent. Euh, sur les mille neuf cent recensés mm. mais tey jii ñoom ñëpp ñàkk seen waajur ñoom ñëpp a soxla ndimbal te su weesoo loolu tamit nga xaar ba dix ans après nga doog a commencé a commencé ne da leen di jàppale ba ban âge déjà ba dix huit ans déjà boo amee dix huit ans ñu arrêté waaw léegi am na ay mesures yu ñu waxoon ne koo xam ne am na plus de dix huit ans su amee yenn problème yi mën na dem office poser leen ay problème am ñu xool nuñ ko si mën a jàppale mm-hmm. wante ñun dañ jàpp ne prise en charge boobu warul yem si 18 ans déjà mm-hmm. te prise en charge boobu war nañ si boole tous les orphelins sans exception bu paree jël en compte rétroactivité mm-hmm. boobu ñu waxoon donc euh, prise en charge orphelins yi soxal na leen justice soxal na leen ak yan ban ban yan ponk tey jii ngeen bëgg autorités yi vraiment taxaw ci Euh, naufrage bateau le Joola am na mbiru renflouement bi génneewaat euh, bateau bi si ndox bi mais nee nañ loolu euh, li ngeen di demande pratiquement c'est impossible non c'est pas impossible c'est mm-hmm. pas impossible renflouer bato bi mm-hmm. c'est ce n'est ni une question de moyen ni une question technique mm-hmm. question wu bëgg-bëgg rek la si nguur bi nguur bi bés bu waxee ne dinañ génnee bato bi dinañ génnee mais lan moo tax ngeen bëgg ñu génne bato bi mais loolu déjà y a plusieurs raisons man gëw ma ne euh, fii am na kenn koo xam ne maa ngi koy répété tout le mm-hmm. gëw ma ne am na kenn si dëkk bi koo xam ne dina ñàkk ay mbokkam ne ah euh, dee nañ jeex na fu ñu nekk ñu baleen fa mm-hmm. xamuñu loolu dañuy jël suñuy mbokk ñu suul leen ñu def suñu dëy correctement euh, delloo leen jukkal di mën a dem si cimetière yi di leen fa ziyaare mm-hmm. wante tamit bokk na si mbirum seet bato bi tey jii su accident amee si yoon bi dañuy def constat. Mm. ñu xool lu ko waral. Mm. bato bi am na rapport yu bëri yu génn. wante gëm naa ne tamit suñu génnewoon bato bi. dinañ mën a gën a seet bato bi xool qu'est-ce qu'il en xool tamit toutes les causes euh, de ce drame là mais tamit loolu dinañu permettre aussi après cet examen ñu mën a dem yoon parce que soo xamee toutes les raisons mën nga dem yoon avec un peu plus d'éléments mais, mais est-ce que 18 ans après nekkul impossible vraiment. pour pour génne bateau bi ak tamit éléments yi ngeen soxla yëpp duma duma duma expert en la matière mais jàpp naa ne vu les progrès techniques actuellement jamono bu ñu toll ci monde bi mhm. euh, génnee bateau ci ndox loolu ce n'est pas quelque chose d'impossible euh, bateau bi euh, soo xamee fu mu nekk mhm. te xam nañ fu mu nekk di nga ko mun a dem da ngay xool juste les moyens techniques nan la ñuy def pour génnee ko mais ce n'est pas ndax c'est possible ou pas parce que c'est possible te suñu fàttalikoo 2002 novembre 2002 mhm. euh, monsieur Macky tey jii jiitu réew mi mhm. euh, bu mu doon assurer intérim ministère des transports moom si boppam daa waxoon mbirum renflouement bi mu ne bateau bi dinañ ko génnee ba mu joxe délai ne fileex cinq jours wala 2 mois. Mhm. dinañ génnee bato bi te dina leen deux cent millions de francs CFA. moom moo ko waxoon. Mhm. wante ba tey jii 18 ans après day mel ni deux mois yooyu ñoom ñoo. excedé mais mais de naka nga gisee la fekk que euh, les Sénégalais euh, tiré dara. ci naufrage bateau la Joola parce que bi naufrage bi amee gis nga ni peut-être lu ñu njëkk a wax ni moo andi naufrage bi mooy problème surcharge maanaam bato bi ni mu feesee woon defoon naa ci émission ak yeneen i euh, rescapé ñoo xam ñu ngi woon ci biir bateau bi yàlla def seen bakkan desu si def naa ak ñoom émission ñuy nettali bateau bi mm. fees bi mu feesoon jour boobu tellement Euh, vraiment danga naan lii sax mënul nekk est-ce que bateau bi dina dem donc ñu wax ni problème mu surcharge bi déjà kon tax na bateau bi suux peut-être ay problème technique loolu kii na mais ñu gis ni bi mbir mi amee déjà dañ na dëkk bi même oto yi nii dañuy très surcharge yi ainsi de suite au début mais quelque temps après gis nga ni léegi sax euh, surcharge dafa dem ba bokk suñu dund jàpp nañu sax c'est tout à fait normal oto sol ba fees euh, ainsi de suite naka nga gis wuñ lu bari ci naufrage yu batalo Joola te mu nekk euh, catastrophe maritime bu gën a mag bi pratiquement loolu man à mon avis question wu mentalité la mhm. ndax tey jii ñi ngi société boo xam ne ngeen baal ma valeur dundu nit dañuy wax ne bakken nit amul amul prix. Mm-hmm. Ah, euh, wante loolu dunduñu ko. Mm-hmm. soo bëggee dégg-dëgg fii nii xaalis jaral nañu lu ne. Mm-hmm. tey jii ku nekk balaa ngay seet sa bakken da ngay xool. ah looy looy ñàkk ci koppar loo xam ne ah jàpp nga ne lii ah lii su ma ko defee damay tardé de xaar ma dugg ci oto bi mu surchargé ma dem mm -hmm. que damaa yàkkamti alors que soo teeloon jóg di nga egg te doo dugg si surcharge. Mm. mais dafa doon ay comportement yoo xam ne on na mais pas en avant euh, suñu bakken dañuy topp leneen lu luy xaalis walla si leneen mais duñu topp euh, mbirum euh, bakken bi te c'est plus grave. Mm-hmm. Euh, Yuba Sambou bu nekkoon ministre des forces armées. Mm-hmm. à l'époque. Mm-hmm. dix ans après en 2012 am na interview bu mu defoon fàtte naa si ban euh, média la ko defoon. Mhm. mais damaa tiit parce que moom nee na. Mhm. mbirum surcharge bokkul si cause bato bi ndax bato bi tàmm na. di jël lu ëpp loolu. Mhm. donc dafa doon loo xam ne dafa dem ba nekk lu normal. si ñun kenn du si wax dara. dafa bokk si ñun te loolu jàpp naa ne c'est très grave un ancien ministre ministre des forces armées. nga xam ne armée bu boo xam ne ñoom ñoo ñu war a protéger tey jii ku si surcharge. génn policier bi arrêté la walla gendarme bi. Mhm. léegi ñoom ci seen coor yi tamit euh, ñoo war a reste suñu sécurité marine bi di def surcharge à ce point la c'est que c'est très grave te ñun ñi sénégalais jànguñu ci joolaa bi. Mhm. parce que tamit peut-être que euh, dañoo jëlul temps xalaat bu baax cause yi peut-être que tey jii su doon ci école yi. Mhm. ñi ngi wax nit ñi. nu ñuy waxee ay guerre mondiale wala lu xewoon Chine lu xewoon Japon lu mm, xewoon mm. France ak yooyu suñ toogoon di wax ndaw yi di ko jàngal eh, ndaw yi naufrage bateau le Joola parce que daa bokk suñu histoire tey waruñ ko fàtte devoir de mémoire boobu la ñu am si euh, mboolem naufragé yi te war nañ ko jàngal suñu ndaw yi mais ñun ñii mag ñun ñii suñu bopp war nañ xoolaat suñuy jikko te xoolaat jikko ñun Sénégal dañoo tàmm tout le temps si keneen ki lañ koy xoolaat mm. déedéet bàyyil keneen ki def lu muy def nga xool yow mii sa jëmu bopp lu la war nga xool lan ngay def loo xam ne du yoon nga bàyyi ko ku nekk su defee loolu rek jëm naa ne euh, gëm naa ne comportement yi dina commencer soppeeku mais tamit nguur gi tamit jël ay mesures yoo xam ne dina tax benn nit ñi mën a jaar yoon. Mm-hmm. Euh, dix-huitième anniversaire euh, Batolo Joola tey jii naka ngeen koy fêter yan événement ngeen di amal exactement voilà. Euh, ren ji dafa tombe ak euh, mbas mi donc euh, loo xam ne lañ doon def di woo famille de victimes yi di dem ci cimetière Mbao cimetière Saint-Lazare ci ak place du souvenir ci Dakar ak ci yeneen lieux yi ci Gambie ak Ziguinchor donc ren rassemblement yooyu mm-hmm. dañ koy éviter mm-hmm. donc à la place dañuy wax sénégalais yépp fu midi jotee tey incha allah mhm. ñu def une minute de silence et de prière ñu rendre hommage à ces victimes là léegi dina am ñuy déposé ji euh, gerbe bi comme d'habitude ci place yooyu mais duñ fa dajale mbooloo dañuy dem rek déposé gerbe def une minute de silence ñaanal suñuy mbokk yooyu desoon ci bato bi ñu mun a fàttaliku euh, naufrage la Joola fàttaliku ne mm. lépp loo xam ne waxoon nañ ko ci ba tey ñi ngi koy xaar fàttali ko mbooloom sénégalais yi après euh, dinañ dem def tamit yenn publication ci site web lejoola.com pour que mm. famille yi tamit mm. ñu mën a ñu ñu mun ko dund comme nuñ ko tàmm di dundee mm. di rendre ay hommage di mën a gis ne ah ñi ngi fàttaliku suñu mbokk yi ñi ngi leen di ñaanal ñi ngi koy fàttali mbooloom sénégalais mais le fait que euh, peut-être euh, comme ni nga ko waxee jotuñ jël koor yi denc leen lan moo tax ngeen ciblé ay cimetières yoo xam ni fa ngeen di dem mel ni fa nañ leen denc alors que ce n'est pas le cas. lu waral euh, loolu. déjà y a des cimetières yoo xam ne. Mm yu ñu jotoon euh, te identifié wu ñu leen. yi ñu jotoon euh, retrouver si. waaw mhm. mais jotuñu xam ñan la. Mhm. dañ leen dajale ñu leen si yenn cimetières. cimetière yi donc cimetière yooyu am nañ fa ay mbokk kenn xamul peut-être que yow sa doom wala samay sama frère mi ngi fa mënuma xam parce que doon na ñoo xam ne ñi ngi fa ñi ngi si am na ñoo xam ne ñi ngi si tomb yi mais xamuñu kan mooy kan mais ñaata lañ woon koor yi ñu jotoon a récupérer bon jàppuma nag chiffre bi hmm. jàppuma chiffre bi mais bërewul daal lu lu si ëpp si koor yi hmm. jotuñ leen retrouver mais cimetière Saint-Lazare tamit. Mm-hmm. daa am benn benn édifice. Mm-hmm. buñ fa defoon. Mm-hmm. def fa noowu famille yi pour que nit ñi am espace recueillement donc loolu église bi. Euh, daf siy jàpp bu baax a baax. dañuy jël initiative yu bëri lu jëmale si yooyu te am na ay famille chrétienne yoo xam ne tamit jàpp nañ ne même su dee retrouvé wu ñu seen corps yi. def nañ fa benn tombe boo xam ne. seen seen ndaw yi. Mm. Euh, di fa mën ñëw ñaan donc tomb boobu tomb yooyu ñoom ñu fa def. ñi mm-hmm. ngi xaar ba tey ñu war a tëdd ci tomb yooyu parce que dañ ko defoon. Mm. di xaar koor yi suñ ñëwee suñ ñëwee ñu mën leen fa denc mais ba tey tomb yooyu donc tomb yu vide la. Mm-hmm. koor nekk fa. mais dañ fay dem di leen euh, ñaanal donc de manière symbolique mm-hmm. donc dañuy dem ci lieu yooyu ak place du souvenir nu tax ñu fay dem parce que bu ñu commencé tàmbali wax waxu mémorial musée maître Wade moo diggoon diggee woon mémorial musée joxe place du souvenir buñ koy balaa ñu koy tabax. Mhm. dañu waxoon ne foofu dañ koy tabax mu doon place boo xam ne fa mhm. la ñuy def mémorial musée bi. di si mën a fàttaliku. Mm -hmm. euh, la Joola. Mhm. fa ñu ñëw tabax ko nag changer changer doxalin. def ko place du souvenir. waaw pour ñan. ah place du souvenir africain xaw ma daal. Euh, léegi lu waral lool eh, ban explication lañ leen jox le fait que maître Wade moo ko promettroon ne fii dañ koy def pour ñuy fàttaliku la Joola ngeen jékki-jékki gis ñu transformer ko en quelque chose d'autre daf leen neex rek mhm. daf leen neex rek xam nga nit moom euh, soo nekkee ci nguur euh, nga mën a def euh, lu la neex ki xam ne kenn mënalu la dara mhm. yaay jël décision yi yaay xool lu la neex nga def te tey jii euh, am na dige yu bëri yoo xam ne dellu ginnaaw boobu ñu gis si wàllum place du souvenir gis nañ ko si yeneen point yi tamit mm. donc si point yëpp euh, amul dara loo xam ne wax nañ ko fi loo xam ne nguur bi digewu ko renflouement bi dige nañ ko mémorial bi ñoo ko dige justice euh, maître Wade neewoon na Euh, accepté woon na pleinement responsabilité totalu état. Mhm. ne woon na ay enquête dinañ dinañ def ay enquête te def nañ ay enquête ay rapport génn nañ ne woon na di yoon dina ko topp ñu mën a identifier responsable yi sanctionné mais dañoo mujjee dellu ginnaaw si loolu orphelin yi tamit comme nu ma la ko waxee rétroactivité bu ñu waxoon jot jotuñ ko def donc point yooyu yëpp ñoom ñoo wax après ñoom ñoo waxeet tamit ñoom ñoo dellu ginnaaw ci seeni kàddu te ñun ba tey ñun delluwuñu ginnaaw ci suñuy kàddu ñi ngi toog di xaar ñi ngi koy xeex te duñu arrêté di ko xeex fileex ñu am ndam ci combat boobu. léegi tey ministre des forces armées war na euh, célébrer dix-huitième anniversaire ba ca ca Ziguinchor loo ñu si mën a wax. jàpp nañ ne 26 septembre euh, su jotee. Mhm. mbooloom Sénégal. Mhm. war nañ ko mën a mhm. célébrer. ñun. ku ñëw célébrer ñun mhm. dañuy jàpp ne sax ñëwoo pour ñun sa bopp nga ñëwal parce que mbirum la joolaa dafa laal ñëpp mhm. euh, état bi suñ si célébrer baax na suñ si célébrer wul baax na ñun daal nañ def suñu wareef te képp koo xam ne am na yéene ñaanal ñu noon des ci bato bi alhamdulillah parce que loolu tamit daa bokk ci suñu aada dafa bokk ci suñu cosaan dañ leen war a di fàttaliku wante daal ñun daal képp koo xam ne boole na si boppam bokk na si. léegi est-ce que yéen ngi def ay ay jéego di bind ay lettres la président et tout euh, pour fàttali ko les promesses la l'affaire Joola pour dox si ay jéego mu dégg leen carrément. mën leen defal li ngeen bëgg parce que 18 ans après dafa xaw a gudd mi ngi bëgg a yàgg. mais yan jéego la ñu mën a def. Mhm. Euh, tey ji ñu fi nekk. Mhm. ñoom. ñun gënuñu leen xam lan moo nekk ci joolaa gënuñu leen xam yan promesse lañ def ñoom ñoo ñu ko gën a xam euh, euh, monsieur Macky Sall. Mhm. assuré na intérim ministère de transport. Mhm. mais boobu ba tey. Mhm. ñaata fonction la assumé ci dëkk bi ba bu bu mu nekk nii tey donc fu mu ak fu mu jàll yëpp. amul dara loo xam ne rëcc na ko ci mbirum la joolaa boobu donc suñ si amul évolution. manque de volonté la te manque de volonté loolu du fàttali moo koy changé loolu nit ki mooy xalaataat delloo ci xelam ne ah lii de wareef la ci man ma def ko wante tey jii même moom su ko deful tôt ou tard dina am fii ay njiit ñoo xam ne dinañ xam ne lii wareef la pour Sénégal dinañ xam ne lii gàcce la ci Sénégal ba tey jii ñuy toog di wax mbir yooyu ci la joolaa ba tey jii c'est réglé loolu gàcce bu mag la ci Sénégal te dina rectifier loolu justice dinañ ko def dinañ génnee batu bi dinañ rectifier lépp loo xam ne euh, waroon nañ ko def il y a dix ans mm. te ba tey jii xoole nañ ba defuñu ko. mais am nañu ay euh, victimes wala ay rescapés yoo xamante ne nee nañ même prise en charge psychologique bi nga xamante ni waroon nañ leen ko defal pour soutenir leen parce que bato bu mel noonu nga rëccee ci c'est quelques rescapés bariwul euh, kenn souteniru leen psychologiquement am na si ñoo xam sax mën nañ ci amee ay problème mu bopp ainsi de suite côté boobu lan nga ñu si mën a wax tamit euh, Samsidine. maa man. mbirum rescapé yi doon na mbir bu bu yéem a trop man su ma tasee sax ak kenn si ñoom mhm. euh, damay xaw a day métti si man day métti si man parce que ñoom ñoo ko dund te lu ñu dund noonu euh, mënuñ la sax wax lépp si mhm. lu ñu dund ndax doon na loo xam ne diis na trop si ñoom tey jii soutien psychologique boobu je pense que waroon na nekk un soutien fort un soutien psychologique un soutien social boo xam ne dina leen permettre pas ñu fàtte parce que yu mel noonu doo ko dund di ko fàtte mais nga mën a nga mën a jàllale mbir yi nga mën a delloo si sa xel nga mën a avancer si sa dund d'une certaine manière hmm. am na ñoo xam ne peut-être que yàlla may na leen kàttanu ñu defal ko seen bopp mais am na si ñoo xam ne tamit euh, soxla woon nañ ndimbal boo xam ne jotuñu ko te loolu tamit ci responsabilité wu état bi la bokkoon. Mm-hmm. et na loo xam ne métti na trop. ci ci ci ci rescapé yi peut-être euh, benn question wala ñaar ñu daal di lay libéré nga mën a dem euh, si say activité peut-être ci rescapé yi wala ci famille wu victime yi euh, yow ban kan moo la ci nettali parce que li nga dund yow tamit métti na trop parce que ku ba perdre quatre frères et sœurs si bato bi loolu c'est très dur mais tamit ban histoire moo la ci gën a marqué par rapport ak rescapé yi ngay côtoyer ci batolo Joola wala famille wu victime yi ainsi de suite. koo xam ni sax danga naan kii moom a gën a méttile mbir boobu maa ngi hésité sax ndax war naa si wax xam déet mm-hmm. parce que soo may wax tamit parce que am na koo xam ne maa ngi koy xalaat mm-hmm. wante histoire nit ki def na ba diis na tellement si moom mm-hmm. que rus naa ko sax wax wante juste pour jox la benn aperçu bu ndaw kooku sax miinu ko rescapé la miinu ko am na il daaw wala daaw géej beneen rescapé bu ma doon woow pour préparation yi jotuma ko. Mhm. ma ne xaar ma woo ku ma lay wax nii. Mhm. bu ma koy bu ma ko woowee dafa nekkoon di dawal. Mhm. damaa tudd joolaa mu waaj am accident. Hmm? moom joolaa métti na métti boo xam ne daa dem ba changer identité. bàyyi lu mu lépp lu mu doon def. avant le joolaa mu soppi lépp totalement ci dundam ndax lan loolu dafa daf ko perturber à un point ba moom mënatul dégg joolaa mënatul dem ci géej hmm. moom am na yu bëri yoo xam ne tey jii limité wu na ci ci point yooyu ndaxte loolu daf kaa marqué hmm. daf kaa marqué tellement mais ñi ngi koy masawu tamit ñi ngi koy masawu rescapé la wala wala rescapé la ci bato ba la nekkoon rescapé si bato ba la nekkoon mhm. te bum mu si jógee ba tey doon na loo xam ne diis na trop trop trop trop si moom mhm. am na ñeneen nag histoire yi du jeex mhm. mais ku nekk ak histoire am te dafa diis si ñëpp tey jii sooy seppi benn sax Mm. yaa ngi fàtte yu bëri yoo xam ne mm. ñoo ko gën a metti te bugguma si sore tamit parce que ku nekk ak histoire am ak nu mu koy dundee ak ku nekk nu muy jëlee histoire bi mm. peut-être que du ñëpp ñooy bëgg a ñuy wax seen histoire tey jii fii donc euh, moo tax bugguma sore trop si mbir boobu yéen seen famille tey jii dix-huit ans après euh, naka ngeen koy dundee ati at dañuy dañ leen di ñaanal bon loolu lañu mën a def Euh, dañuy participer ci cérémonie yëpp doon na loo xam ne diis na wante dañuy jéem a muñ parce que ay jullit lañ. Mhm. tey jii euh, bon amul am dañuy wàccee kaamil ñu ñaanal leen. bés bi ñu fàttaliku ko. Mhm. ñu participer si manifestation yi. ak naqar ak frustration ak mer wante loolu yëpp su bés bi jotee dañuy jéem a jël yooyu yëpp tegagum ko de côté. concentré wu si ñaanal ñooñu noonu ñu ñàkk si bateau la Joola mm. ba léegi booy dem Ziguinchor di nga jël bateau agee nag jàmbooñ wala Ziguinchor si boppam 2002 laa fa géej lu tax boobu lañ géej a def dañ dem doon def vacance familiales mm-hmm. mais bu bateau bi amee lañ géej a def vacances familiales famille bi yëpp ànd dem Ziguinchor mm at boobu lañ ko lañ ko gëj a def. bi ngeen ñibbisee Dakar bi ngeen dematu leen Ziguinchor. dañ bon dem naa fa sax dem naa Casamance. Mhm. wante egguma musaguma egg Ziguinchor. lu tax ba tey. booba léegi jël nga bato wala jëlaatoo bato. Euh, xanaa euh, waaw damay jël bato damay dugg chaloupe yi. Mm. par exemple pour gore ak yooyu. Mm. bon aw ma problème boobu. Mhm. bon dinaa leen fàttali saa yu ma nekkee ci bato. sama xel dina si dem wante nekkuma woon si si la joolaa mm mm-hmm. peut-être que am yàllaa tuddoon que waruma si woon bokk looloo ma sauvé wante daal Ziguinchor si boppam mm-hmm. bon mooy loolu daal <laughs> mooy loolu. ay ayca Samsidine xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak auditeurs yi parce que maa ngi wax sànq da nga am ay activités tey mooy seen célébration ñu bàyyi la nga tàggatoo ak yi ak tamit lancer sa dernier appel euh, autorités yi par rapport ak naufrage bateau le Joola. ok jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di remercier pour invitation bi euh, macha allah kontaan naa si. Euh, pour euh, dernier message duma lancer message autorité yi damay lancer message samay euh, concitoyens sénégalais ma ne leen euh, dañu war a tirer les leçons du mm. Joola dañu war a soppi suñuy comportement à tàmbale ko ci man mii di wax wante ku nekk ci jëm boppam xoolaat lan moo ko war bul xool ne ñépp ñi ngi def lii rek nga ne ah man même su ma changé man dong la mm, mm. bul xool loolu yow da ngay changé sa bopp bu pare nga seetal sa jikko nga seetal sa comportement après keneen lu waay def moom la wante yow da nga war a def sa wareef donc mm-hmm. loolu laay ñaan di ñaax sénégalais yëpp mm-hmm. nañu jël su bakkenu doomu aadama mm-hmm. teg ko si plaasam parce que bakkenu doomu aadama du xaalis moo koy jënd du leneen a koy jënd loolu doon na loo xam ne lu sacré la te war nañ ko di ko sàmm ayca mi ngi noonu ñu ngi koy remercier bu baax a baax ki lee di euh, ay dara nekk euh, membre euh, bu musée bi nga xam comité bi nga xamante ne teg nañ ko pour musée mémorial Joola ñu doon waxtaane ne tey ji célébration euh, dix-huit ans après le naufrage du bateau le amoon ci septembre euh, mille deux ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci disponibilité ma euh, di leen remercier yéen suñu auditeur yi ànd ak ñun chaque samedi de dix heures à onze heures di remercier Diawo Diallo bi nekkoon ci machine bi Léon Paul Mendy ci technique bi émission bi nag mën ngeen koo dégluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com di leen jaajëfal ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité.